nag daal di dellu siwaat ci ñaar fukki candidat ak benn yi nga xam ne rek ñoom la ñu daal di tànn ci juróom-ñeent fukk ak ñett yi nga xam ne rek déposé woon nañ seen parrainage bokk na ci Boubacar Camara Déthié Fall Cheikh Tidiane Dièye professeur Daouda Ndiaye Karim Meïssa Wade Habib Sy Khalifa Babacar Sall Anta Babacar Ngom Amadou Ba Rose Wardini Idrissa Seck Aliou Mamadou Dia Serigne Mboup Pape Djibril Fall Mamadou Lamine Diallo Mohamed Boun Abdallah Dionne Malick Gakou Aly Ngouille Ndiaye Mame Boye Diao Bassirou Diomaye Faye ak Thierno Alassane Sall Sall yéenekaay bi ne ginnaaw saytu gi njëkk gi nag ñoo ngi xaar délibération bi ñaar fukki fan lay doon ci weeru janvier bi ñu jëm enquête yëglekaay daal di dellu siwaat nag ci secret yi nga xam ne rek moo waral nag kii di Malick Gakou ak Mamadou Lamine Diallo daal di réussir nag ñoom ñooñee nag mu dippee leen ay outsider Idrissa Seck nag lu jëm ci wàllu justesse mu ne moo ko tax a jàll Rose Wardini nag pour honorer soxna yi loolee bokk na ci li ko tax a jàll yéenekaay bi di samp ab ci recours bi nga xam ne rek ñi ñu rëkkalee déposé woon nañu ko bëgg am déet lu mu ci mënti doon yër leen bi la yëglekaay candidat yi nag fexe nañu ba jàll yëglekaay bi di Sud Quotidien moo ko xamle jëm nag ci saytu gi nga xam ne moom la ñu doon saytu seeni parrainage Idrissa Seck Malick Gakou Aly Ngouille Ndiaye Mame Boye Diao fekk ji nañu nag candidat yi nga xam ne ñoo gañe ci premier tour bi fukki candidat ak ñaar yoo xam ne rek saytu nañu seeni parrainage dañ leen a rejeté Rose Wardini di ñaareelu jigéen ginnaaw bokkuñu ci yile élection petit modèle loolee nag la yéenekaay bi di Le Quotidien daal di fësal ci xëtam bu njëkk ñi nga xam ne dañ leen a recalé te ñu bokkoon ci gouvernement bu Macky Sall bokk na ci Souleymane Ndéné Ndiaye Abdoul Mbaye Mimi Touré yéenekaay bi ne ñii moom pare nañ ci jongante bi Idrissa Seck ak Boun Abdallah Dionne nag dañoo daw fas waaye xaw tuuti rek ñu bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di nettali yile élection recalé wala destin piégé lu mu ci mënti doon l'observateur nag ma ngay xam ne ni daal ñii ñu recalé boo moytuwulee nag fii lañ nar a jaaree daal di bàyyi politique ba faaw ñaar fukki candidat ak benn nag ñoo jàll kon ci parrainage yi nga xam ne rek doon nañ ko amal ni ki démb ca conseil constitutionnel fileeg boobu nag ñuy xaar li ne ci suñu kanam mbir yi nag comme effet secondaire bés bi le jour ne jamono jii kay ñaar fukki candidat ak benn nag fexe nañu ba am seeni parrainage waaye nag lu jëm ci défi bi nga xam ne rek moo soxal organisation beeg matériel bi ci atum 2019 nag lu toll ci 14 milliards moom lañ ca dugaloon te juróomi képp ñoo dem Diomaye Faye ñetteelub candidat bu Ousmane Sonko jàll Nguy Ndiaye Boun Abdallah Dionne Mame Boye Diao ñoom nag fas yéene nañoo taxaw ngir jàkkaarloo ak candidat Macky Sall mu di Amadou Ba yëglekaay bi dellu siwaat ci Mimi Touré Abdoul Mbaye Souleymane Ndéné Ndiaye ak Abdourahmane Diouf Bougane Gueye Dany yi ñu rëkkalee Walf Quotidien nag daal di xam ne ne bëccëgu démb bi kay soxal parrainage yi ñu doon saytoo ca conseil constitutionnel nag candidat yu bëree bëri jëlee nañ ci naqar akuk mbetteel libération nag daal di ci mbirum Colline Faye mi nga xam ne rek dañu koo tegoon loxo jamono ji nag li ñu koy toppee bokk na ci génn gu muy yay génn ci lu jaarul yoon na ak i complot yoo xam ne rek da koy amal jëmale ko ci état bu Sénégal rawatina nag ci ay mbir yoo xamante ne ma nga cay dugal loxoom te loolee nag mën naa yëkkati fitna fii ci réewu Sénégal laas yëglekaay moom tey ci wàllu tàggat yaram la daal di dellu siwaat ak drapeau bi nga xam ne rek doon nañ ko jébbal équipe nationale bu Sénégal ni ki démb nag mu jëm ci kaan bi nga xam ne rek ñu ngi ko fas yéenee amal yéenekaay bi ne président Macky Sall jamono ji nag ma ngay sàkku ci gaynde yi ñu daal di defub dank ngir mën a indiwaat coupe bi Kalidou Koulibaly di tontu ci biir yëglekaay